collaboré nga ak ku ci mel ni Mansour Faye mhm. te Mansour Faye dañu gis ni ñu bëri peut-être ses liens de parenté avec le de l'État dañu koy ŋàññi lu bëri par rapport à gestion te yow collaboré nga ak ak moom lan nga ñu mën a wax ci tënk rek par rapport à cette collaboration très euh, gis nga jugement de valeur mhm. baaxul ci nit Mansour yu mu booleeg moom mooy jànk mooy xarit de vingt cinq ans euh, c'est un homme très compétent Euh, du jaxase politique ak liggéey di ñu séq man ak moom il reste toujours un très grand ami à moi bokkuñu boor politique nag loolu yàlla moo koy def mm-hmm. mais c'est un homme très très compétent tey avancé ñuy am yëpp dans le secteur de l'eau et de l'assainissement du kenn ku dul moom on reste de très bons amis on n'a aucun problème personnel bokkuñu boor politique nag mais bu dee waxtaan wax dëgg sala mm-hmm. euh, c'est un homme très compétent et contrairement à ce qu'on dit dafa jàng bi jàng waree Mansour a un diplôme à l'INSA de Lyon. d'accord Mansour a fait un billet ensemble qu'on a fait man ak moom ce la ñu xamante bu yàgg. moo tax defe naa yenn saa yi aussi foog ñu jël recul tuuti éviter ce que moi j'appelle des jugements de valeur dans certains cas.